bokki jullit yi gannaaw bu nu sante suñu boroom subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo bind asamaan ak suuf loolu ñépp xam nañ ko waaye li ne ci diggante asamaan ak suuf it moo ko bind muy loo xam ne boo koy xool day leer ci say gët ak loo xam ne bala nga ko gis faw nga ngannu ko ngannu mooy fexe ko gis ndax am na ñooñ seenub gis bu soree duñ ko gis am na ñoo xam ne bu leen jegee ba ëpp duñu ko gis yàlla moomu nag koo seen mu nekk fi bu fekkee bi muy ñëw fi la fekk yàlla ko fi andi bu fekkee dund na ab diggante nga door koo gisit xamal ne yàllaa ko fi indi woon danga koy soog a gis rek waaye ku fi jóge it moo ko fi jële te kenn ku ci nekk wut na waxtu ak bis bu mu fi war a jóge du ko yées du ko ëpp yàlla moom it bu ko kenn wutal fu muy dëkk ñu ngi fépp di fekk lépp di gis lépp di xam lépp te bu ëllëgee it lépp lay àtte nit ñi nag dañ dul waaw ndax bis bu set yàlla waar leen yàlla moomu nag noo ngi koy sant bu baax ci gindi gi mu ñu gindi ba boole ñu ci jullit yi yàlla na ñu dimbale bañ dund ci ba faatu ci dekk ci pas-pasu lislaam di balu xaq ñépp gannaaw bu ñu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey baal xaq ñépp yal nañu yàlla boole jéggal suñu fàttalante tey dañu koy tënk ci benn tomb waaye bala ñu cee agsi yàlla moomu ma doon junj na ñun ñépp ñu ngi maase di ko sant ci wan gim ñu wan aw yoon démb rek wanaat nañu boppam démb bi ñuy samp député yi ñu faloon fan yee ci la ñuy seetloo ne yàlla rek moo mat a wéeru moo mat a bàyyee sa mbir moo ko mat a jàmbat ndax moo ko mën a faj ñooñee ñu faloon ëpp nañ téeméer ak juróom fukk ne ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom lañuy jàmbat loo njàmbati réew mi waaye bokk yi la fa feeñ démb ndax ñooña mën nañoo ànd ak di fajal nit ñi seeni soxla am na kenn koo xam ne ku yàggoon foofa la ci barab boobee di fa di fa liggéey laata mu fay liggéeyee it jaar na ci ay liggéeyukaay yu bari waaye ba ko yàlla di jël yëguñ ko fañ dajee di waxtaan ak a tàmbalee tàccu yëguñu lu xew fa lañ leen waxee ne kooko wàcc na liggéey yàlla na ko yàlla yëram yàlla nag mbiram amul lu muy làmbatu li ñuy wax lu daje rek nga xam ne da ko tànt déedéet lu ci ne wutal na ko waxtu ak bis bu mu koy feeñal waroom xel yiy nàcc tey amug yëg seen diggante ak seen boroom di ca jàngat danañuy gis ci alquran lu bari inna fi dalika la ayatan li qawmin yatafakkarun inna fi dalika la ayatin li qawmin yaqilun inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun inna fi dalika la ayatin li uli nuha ñi seen pas-pas di dund nag ñooy yëg lu nekk ñu yëg ca yàlla ndax luy dund mooy yëg am na ñoo xam ne bu ñu leen di fajal seen i bëñ seen i bëñ ki leen di fajal fajal bëñ yi danaan leen saa bu mettee rek na nga yëkkati sa loxo fekk takk nañ ko fa muy laal muy metti mooy fay dund ci moom waaye fa muy laal te du ko yëg foofa dee na ñi seen pas-pas dund nag ñoom ñépp amut luy ñëw ba jàll te duñ ca jàngat xalaat ca suñu borom subhanahu wa taala ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne bu kenn xalaat jëmm yàlla ji waaye nañuy xalaat ci lim bind sëriñ bi bind ko ci Mawaahibul Xuddus ne xalaat jëm yàlla sax bokkaale la waaye del xalaat ci lim bind bu la dara raw bokk yi fa ñuy jàmbate njàmbat ya nekk ci benn dëkk muy Ndakaaru ñu ne ñii lañ fal ngir ñuy jàmbat njàmbat yi yàlla na leen yàlla dimbale nag ba yaakaar bañ a tas ci ñoom ñooy daje ku bokkoon ci ñoom ay at liggéeyee fu nekk diirub ñeent fukki at muy liggéey ci réew mi ñu jekk jekk na leen faatu na te yëguñu ko woon ndax ñoom mën nañuy yëg liy xew fu gën a sori ci réew mi ginnaaw ñoo bokk nekk ci biir ndakaaru te yëguñu ne faatu dañ leen ko wax ñu soog ne tekk foofu bataaxal bu fi yàlla bind ñépp yónnee leen ko xalaat loo leen ci bokk yi kooke yàlla na ko yàlla sëmbërtal la yërmandeem waaye moom dong moo xam mook yàlla fii mu nekk te it bokkoon ci majorité amalu ko njariñ fi mu ne nii bokkoon ci minorité amalu ko njariñ ba mu cay nekk mook ñu bari ñu ca nekk looloon bu ñuy leeral seen ab liggéey ca liggéeyukaay ba yàlla ñañ nekkal lañ koy leeral ak ña leen yilif waaye bis ni ki tey yàlla lay leeralal lam nekkoon yàlla na ko yàlla teeroo yërmandeem ndax bari nañu njariñ ci biir réew loolu nag dana war a jox bind ña ko fa wuutu ne la kilifa gu tedd waxoon gu am xam-xam te laa biiroon ci xam-xamam nga xam ne li sëriñ bu mag bi wax ci benn téeréem ne lu waay xam ne miig ak moom na patt ak moom ba yóbbaale ko ay daan mën na ko jaa fekk loolu dalu ko woon ci xam-xamam fa kullu man bi ilmihi qad baxila fa innahu qabla almamaati yubtala ana lu mu waxoon jëme ko ci ndaje moomee assemblée boobee mosoon na leen a wax ne moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Dabakh sax li muy gaat nga lu rafet la mooy kuy nooyal lu dëgëroon bu jàppee der mu wow koŋ daf koy wulli ba mu nooy mooy Dabakh mosoon naa wax ak député yi ne leen na ngeen fexe ba lu ñu leen indil di leen ko wateloo ngeen jëkk cee xool seen diggante seen borom ki faatu démb te bokkoon ca tàmbali na caa xam na bu leen wut lu neex ma sàmba wala lu neex ma demba ndax su ngeen ko ca seete it ëllëg gi si bit da ngeen koy layoo ak seen boroom ak seen moroom ya leen ya ko tegoon ci seen loxo wane na ko démb jékki-jékki na rocceet ku fa yàgg yëngu lool barab ba xam ko mu xam barab ba ñu jékki-jékki na leen bàyyi ko na leen fa seeni naw dog loolu ku ci jëlewu dara na seetaat pas-pasam ndax mi ngi dund wala déet moo tax kuy dénk dénkal yàlla sa bopp soo yoree loo bañ mu yàqu dénk ko soo yoree luy nëbb te kenn bañ kenn xam ko dénk ko ko te bu dul noona nga bàyyi ko fa saasa ndax bu yàggee nit ñi danañ ko xam waaye lu baax lépp nag moom dong moo ko mat a dénk ndax moo koy denc muy yokk yàlla na yàlla defal dégg ak topp ci lool di ndokkeel nag mbooloo moom mépp ndax ginnaaw dañoo wax nit ñi leen tànn déedéet ñoo ñëw ni nit ñi tànn leen ñu ñoo ñëw téye ñu ne nit ñi yan leen ma buñ leen yenee nag nit ñi seen jaan wàcc na ndax yaakaar ndax jàpp ne kenn ku ci nekk fa mu bàyyikoo su demee dana leen faral ay ronkoñ kenn ku nekk fa mu bàyyikoo su demee fu mu gis dara lu baax dana ko jël indi ko fa yàlla bu yaakaar tas te njëkk a bàyyi xel waxi Cheikh El Hadj Abdoulaye Cissé jooju mu ne yaa ñu fay wate tan di fa àtte jullit yi mën nañoo dem ba jéggal ku defoon lu ne weng duñ fa wate moom lu ñuy rey nit moom ndax rey nit nee nañ yàlla da cee juum dutu am ci réew mi ku def ñu rey ko moom nee nañ yàlla da cee juum dutu fi am nee nañ waaye nag ginnaaw am nañ doole yi def jéggal ku defoon wu ne weng wengeeral li ne ci seen loxo lu diis la nañuy fexe ba lu ñuy jëli jëme ci jullit yi ñu seet tikk ca seet seen diggante ak seen borom ni ko borom xam-xam boobu waxe balañ caa seet luy neex nit ak luy tax ñu yàgg ca place ba ndax yàgg yàgg ca place ba yaakaaruma ne mën nañ fee gën a yàggati ki ma doon junj léegi 77 ba léegi mi ngi yëngu ci réew mi réew mi di ko fay kenn ku am juróom fukki at ak nangam door faa dem bu yaakaaree ne dana fa nekkaat juróom fukki ñeent fukki at yu mat sëkk mën naa ndax boppam ndax foofu du fu ñuy dëkk kon kii ne yàlla dana roseet mat naa bàyyi xel lool te fi mu toll nii moom dara umpatu ko moom loolu wax suñu borom la suratul masjid mu ne ku faatu kumpam dañ ab gisam ak xamam day bëtt ay mbir di jàll waaye du ko mën a wax kenn bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwagutoon di tax julli wala sant yàlla la xewoon mbaaru day bëgg a dellu si waat la xewoon mooy lañ façon baaxutoon nañ doon dégge kuy wax lu bokkut ak lañ façon dégg dëgg boobu baaxutoon fañ jëmoon baaxutoon lañ jublu ca di bëgg faa dem baaxutoon jikko ci boppam amuñu ko woon ba mbooleem li nit di yëngu daj kaw kon daa mel ne ñu doon dox dong lañ di wax waaye nit nekku fa woon nit nite moo tax ñu di ko wax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee nag li ci Seydina Jaafar wax ba jamono yooyee ñu xatale woon jullit yi ca Makka ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal ñu gàddaay dem Éthiopie jëm si Afrique rek duma ko tudde Éthiopie waaye jëm si Afrique ndekete yoo yonent bi amoon na yaakaar ci Afrique ba yónnee jullit yu bari nee nañ dem làqu ji Afrique kon Afrique yi war nañoo mën a yëkkati seeni mbagg xam ne yonent bi ci ak nite jaaxle ma son naa am nu muy def gaa yi ba duñu leen faagaagal nit ñëpp bañ jeex mu am yaakaar ci Afrique loolu nag dañ koy nëbb ndax Éthiopie yi mooy Afrique rek soo fa demee lu ñu def da nga ko xam ñoo niroo bokk lu ñuy def waaye Seydina Jaafar ba mu demee ba àgg ba muy wax ak buur ba ñu di ko tuddee an Najashi ya manqué woon te lislaam def ko ci ju war koo def ci jullit yi da koo lim benn par benn ba mu àgg daf ko ne ñun ci caddo lañ judd ci lañ màgg ba toll nii ñu toll dañ doon yat wala ñuy tabax di ko jaamu muy xërëm di ko reyal lu nekk lu dee ñu lekk ko lu ñu dikk dee rek ñu lekk ko ba mu des nit médd lu dee bokkut ak lu ñu rend lu ñu neexit def natil fawaxish ak bokk teguñ ko woon fenn bu la neexee dox ko bu la neexut nga bàyyi dëkkandoo it teguñ ko woon fenn amut àq jiñ ko waroon na ameel lu ñu neex jaar fu ñuy neex jaar sàkk ci moom ku néew doole it yaa tooñ ku néew doole moom yaa tooñ néew doole doyoon na ak tooñ ci jamono yooyu te lu way amit bu ko boroom doole gisee ci yow sañ naa sañ na koo jël nga ñàkk ne ko lenn lii de lenn la ci liñ nekk woon bi yonent bi laata ñëw sallallahu alayhi wa sallam mu xamal ñu nag ne yoon woowu du aw yoon ba mu ñu koy wax nag su fekkonte ne ganeewul àdduna ci suñ kanam ñu xam ay waajuram xamu askanam xam jikkoom ju rafet xamuk dëggoom xamuk amam kóllëre ak bari kersaam ak bari lu muy jomb ak lu muy rus danañu jàq waaye yooyu daje ci moom bu dee dañuy natt nit ci askan askan wu rafet wi ñuy tiitaroo ñun ci la bokk bu dee lu mu la wax lu ne ci moom la ku ne da nga koy jàng ci moom su dee kum siqal lu ci nekk yaay des waaye moom daraam du des moo xam muy ndénkaan ci alal wala ci ay wax fenn fa ne fa nga ci yemoon fa lay yam waaye mbañum rus di bàyyi loo xam ne mën na ko def te kenn du ko te kenn du ko gis mu bàyyi ko xam ne yàlla nga koy gis ba mu ñuy woo ci nañ jaamu yàlla mi nga xam ne kenn la jur kenn juru ko te ne ñukk xërëm yee ñu yoroon te ñu doonoon ko ci suñuy maam ak i maamaat muy ay doj yu ñett wala bant yu ñett su waajee wutoon noonu ci jikko danañu jaax bokk yi nag ci tënk yooyu jot a tudd ci ay melokaan yu melut nam war a mel ak melokaan yu mel nam war a mel dafa mel ne dañ fa bëgg na ñukk melokaan yañ war a mel bëgg a duggaat ca la jiitoon yonent bi yàlla na yàlla musal ca loola ndax suñ demee ba yàgg am ku taxaw ne man diw diw laa gëm ñu jàpp ne kii ñu bari di wax ne moom lañ gëm moom lay wax mu ne waxut kooka ñu defe ne ka ca topp la mu ne waxut kooka ñu defee ne kaca topp la mu ne waxut kooka ñu di ko lim ba mu bari mu ne waxuma ñooñu ñëpp ñu ne ko koo gëm mu ne ka faboon junni ba ci kanam ñëpp lakk ko kooka laa gëm gëm ku jël ab junni lakk ko ne xaalis bii baaxut ci yéen nee na kooka moom la gëm moom bokk yi bu Sénégal yëpp ku ne jëloon junni lakk ko loolu ñaata la ci xaalis ñaata teen la mën a gas lu xaalis bi bon bon ñaata teen la mën a gas ñaata fajukaay la mën a tabax ñaata nit la mën a yët ndox ñu naan ko gannaaw dañoo daa am dëkk yu manqué ndox ñaata nit la mën a dimbale ñu topp daane seeni kër bu ko Sénégal yëpp lakkee moom moomee daa waroon buy lakk loolu sax taxu moo jóg waaye baatub gëm naa diw te du kenn moo ma ci moo xaw a metti jullit yëpp te kooka du yàlla ki ñuy war a gëm du yàlla bokk yi kooka bu fekkoonte ne da doon bañ ak nooteel dëgg dëgg dëgg dëgg lu teewul mu lakk passeport français ba mu yor tàmbalee ca lu tax africain yëpp ñii di tukki yor passeport Côte d'Ivoire ñii di yor Mali ñii di yor Sénégal ñii di yor Gambie ñii di yor Ghana wala Benin wala Togo mu ne ko fa ñukk jël passeport français ba noppi naan damay xeex ak français tey làkki français loolu mat naa taxaw seetlu ba xam lu jubluwaay bu ne bu ñu doon almet teg ci kaw passeport français ba mu lakk ba jeex danañ xam ne kii ku bañ France la te mu dem ba benee dem ba vida wala mu dem ba paraku wala booy ko mu taal passeport bi ne fii laa dëkk waaye jël kayitu junne woo xam ne ñun suñ jumaa yu ci bari moo koy tabax suñ hôpitaux yu bari boo cay dem moom nga yor di ko fajoo suñ ndox mu bari moo koy wëgg bu ñuy jënd bu ñuy jënd essence di dem ci lañuy ci la ñuy fay booy wecc ku téereb xasida moom ngay joxe mën nañu baaxut kooku li mu bëggoon a wax dëgg mat na koo laaj ba xam lan la loolu lépp nag li muy junj rek mooy faw am ñoo xam ne dañ leen di soloon mbubb mu mel ni suñu mbubb mën nañuy wax sax suñuy wax waaye dañuy def ne sibbiru di def sibbiru ñi koy faj nee nañ sibbiru la ñuy pikiir nit ki sibbiru mi ko dal moom la ñuy pikiir nit ki su ko defee fu sibbiru jaar mu mën faa jaar waaye su fa jaaree moom da koy sakk sibbiru bu ñëwee du am fa mu jaar bu yàggee mu jeex wolof bi leer la kon xaalis bi walla baa bu ci julli di sukkandiku jàpp ne lu ñuy am moo leen koy may wala sukkandiku ci diw wala ci diw jàpp ne lu ñuy am moo leen ko war a may nañ sukkandiku ci yàlla mag ña ñu jiitu ak ña leen jiitu daanañ faj seen soxla te xamuñu woon xaalis xaalis lu ñu dab la bu yàggutoo barca barca ak gagale amoon na fi barca barca nattal ko mu nattal la nga yor loo xam ne ka yor soow li jaay soxla na ko nga yor la mu soxla ngeen nattalante ku ne dem buñ ñu bëggee walbati nañu seen adduna su jag te adduna su jag ca la àllaaxira da jege ci xaalis sàngam lay aju julli di sax waruñoo xool xaalis far dañ ko war a wan gannaaw xam ne seytaane da cay jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla doon wax ne bul fab sa mbir di ko wekk ci kenn kuy dund genn kilifa daan ko misaal ci ne kuy soja ko wér ndax su mbir dëgmalee moo xam ne yàlla ko dogal mu war a ñëw ci yéen su ngeen àndandoo woon taxaw ci mbedd mi sax du tee mu dikk waaye lu fi war a jóge su ngeen àndandoo yéen ñépp ku nekk yor dara war ko fa jëlee su ko su yàlla ànd du fi jóge loolu réew mu mag mu ñuy wax États-Unis d'Amérique xam na ci dara fan yii rek xawma nuñ koy tuddee waaye yàllaa fa jaar rek moo fa wane dooleel tuuti ci kàttanam réew moo xam ne ñépp a leen ragal kuñ tëkku nga tiit kuñ bëgg a xañ mën nañ laa xañ nee nañ kuñ bëgg nga bari le mën nañu fexe ba nga bari le benn bis ñu xëy ne dëkkub juróomi million ngi nit génn leen ndax xamuñu nu ngeen def ba mucc bu ngeen génn dëkk bi ñu ne lu ñuy moytu mu ne tabian merum nature bi nature boo ko déggee rek yàlla lañ bëgg a wax waaye dañoo bëgg tax baatu yàlla mooy ngelaw loo xam ne du bàyyi dara lu muy romb du bàyyi fenn du bàyyi garab du bàyyi kër du bàyyi usine juróomi million ngi nit bu ñu bëggee génn ab dëkk fu ñuy jëm fu yàlla nekkul suñ leen ne woon toog leen ca jàpp ci yàlla yàlla mën na leen a musal waaye dañu leen daw leen defe ne daw moo leen di musal innal mawta lazi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum kon jullit bi am wërsëgu gis lu leer nañ muy yàlla mooy joxe mooy xañe na wéeru ci yàlla moom bu mu faale ku koy xëpp bu mu faale ku koy xub loolu waxe suñ tubaab la nee na woon ñii ma àndal danañu jëflanteeg yow ci ñetti yëf danañu jël gànnaay léeg-léeg sax moom la ñuy mujje waaye dañ lay jéem a xub yor gànnaay nga të way dégg nga ci la nga nekk ñi fab alal bëgg la ko leel ndax wolof day wax ne ku log log loggal nga të mu bëgg jaar ci sa kaw jëmm nag nee na su boobaa bu leen ko nangu suñ leen di daaneel it gànnaay na fekk ngeen yor ko ci seen loxo daanawaale ak moom muy fu la jumat sëkk maa la yanfauka wala yadurruk fa in faalta fa innaka idan min aldalimin wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridika bi xayrin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yashaau min ibadihi wa huwa algafuru rahim ginnaaw nag moom la yonent bi moom la yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak lim toll ak lim yor ci waajtaay xamoon na ni léeg-léeg nit bu ko ak nit jikkalee alal mën na ko yóbbu wala ab jay yóbbu ko ab jay xëpp ak xupp xëpp moom ab jay da ciy bokk yaway lii yaway laa yaway lii yaway laa jaar naa ci léegi bi may tàmbali ku ñuy tàcc ba mu yàgg ñu tëral ko mu ne laaj mënut a dàq weñ ku koy dal mënut ni fii tàng na lu wax ja bari bari danaa nem mënut ne ndox mi ngeen may sang sedd na mënut ne tàng na ba ëpp mënut ne ci diw bokk wala bu ci diw bokk allahu akbar yàlla rek mooy waaja su fekkee ku ñuy naw dañ naan mooy waaja yàlla lay doon suñ naan moom la jublu ci ponkal mi kenn mënuloo dara yàlla lay doon su dee ki tëlewul dara moom lay doon su dee ku dul jeexal dara moom lay doon ku wéeru ci moom nag kenn du la mën a daaneel ñii bay nii rek xam nañ ci dara da ngay dégg ñu laaj aw jiwu waaye kiy joxew jiw soo la ko dee joxe jox la ko dong la cay man xamul nu suuf seeg ndox mi di def bam sax waaye kii bay mooy def am tooba waq sànni xamul nu mu tëdd daa jaaxaan nag dafa taxaw ak nu muy def ba war a sax loolu rek la ci am ñii ji nag ñépp a ci am ñii ji kaaneeg ñii ji suukar ak ñii ji ceeb ak dugub ak lépp mu taw mel na ndoxam ne lépp sax ñor kooku moom la keneen ku fi mën a nekk lu ñu ko tudd tudd ak lu ñu ko naw naw bi mu fii daata ñëw fekk na subhanahu wa taala nekk fi lu yàgg moom moom li mu fiy nekk lu tuut lay doon ci li fi àdduna nekkoon dana fi jege lu yàgg àdduna nekk fi lu ëpp li mu fi nekk moom te li mu fi nekk ku si ñëw diggante bu gàtt lay man allahu lazi xalaqakum min dof nit ki buy ñëw du man dara dañ koy for da ngay dañu naan diwa ko for kon daa wadd wàccalut boppam ca peluwul mu tàmbali ñu di ko wan fi lekkukaay gi nekk rek li muy lekk dañ ko koy saxal képp maanu ca yàlla leen cay wuutu moo koy xamal ne ko da ngaa war a manque mu dikk bu doyalee du bu doyalee si dusu dusu manque kenn du jàngal ni kenn suur ba mu yàgg nga jékki-jékki xëy gis ko muy toog nga gis ko muy raam ba mu yàgg mu ne ñokket di daanu ba yàgg mu ne sempet di dem yoonam ba mu yàgg wóom yi tàmbalee bañ mu dox jëmaat ci fa mu tàmbalee woon ba mu yàgg muy laaj ndax reer na wala réerul bu dee ci kaw gi dañ koy taqalal cere ci jëbi rek ci sikkim bi rek mu làmb ne wax ngeen dëgg rek dutu xàmmee xiif ak rek bokk yi diggante bi ñu ngi dox ay soxlaam ba ba muy agsi foofu bu fi wóoloo kenn wala mu yaakaar fi kenn ko dul yàlla mën naa indi jafe-jafe sax kam yi wóolu wala mu di ko yaakaar te du yàlla ndax yàlla dana ko taaj bu ëllëgee ne ko ndax kii yàgg moom ma woon démb mu ne déedéet man koy tëluma kenn yow rek la yow rek la su boobaa wax amatu fa amatu njariñ yàlla na yàlla defal dégg ak topp te musal ñu ci pakk seytaan yaxfirullahu lana wa lakum